waaw na xam ne xam ne moom mooy sëy rek léegi na jéem a naxanteeg jëkkëram waxoon def li war ci moom boo xam ne du génn dem ci keneen waaw. kon jigéen dafa war a jonge. jigéen dafa war a jonge. yow jigéen comme ça ay lan la. Hmm, na des naa xam nag loolu moom des naa cee xam a que duggaguma ci. non est-ce que yow bëgg dugg. man waaw bu jotee rek moo dugg incha allah. est-ce que bu jotee di nga dugg. bu soobee yàlla. mais tonton. Mhm. mais tonton Saly. salaamaaleykum. très bien. salaam. maaleykum salaam. jamtan. addu sellu. déggul bu baax nag. Ah. waa léegi tonton yaa ngi ci biir émission Rich mon djizz Baaba Maal bi laa lay may am nga koo ci nuyu. ah ndax ndax am naa ma ci nuyu. ah oui damay encouragé Baaba Maal c'est un grand c'est un grand poète. toujours admiré. gannaaw yow bu liwee di nga sol lu diis wala da ngay sol sa kii sa chemise noonu dem wala da ngay sàngu booy génn. non damay sol sama veste ak sama cravate nag wala sama eh? nœud de papillon waaw waaw. basi kañ. costume tonton toj nga fi. léegi boo solee costume boo génnee xam nga dinañ la xool te soxna sa kër ga xolam du neex. waaw dinañ la xool de man maa ngi maa ngi di la xool. man de man laa xool sax yow man yaa tax may wax di. danga may waaj a xool wala danga ma xool. dama la xool ba pare moo tax ma sawar a wax. moo tax ma sawar émission bi dana neex yéen ñëpp laay nangu seen jëkkër yi léegi yow man fii laa dëkk Medina. yow Linguère nga. Ah. Linguère nga. moo tax mën nañoo ànd sama kër Medina naanu sedd. <laughs> ah mais tout à fait bien ah. sûr pourquoi pas. ñu dem ah oui mais ah. du yàq dara. waaw kon nuyul sa xarit yi ñu dem nuyul ñëpp ci biir émission Rich Mon man nuyu ñëpp. bon man maa ngi remercier sama waa sama collègue tout le monde surtout un ami principal. sa s'appelle Assane Diop qui habite à la Médina. on vit presque on est ensemble c'est un jeune frère. bon maa ngi koy may jigéenu Sonatel yi ak góoru Sonatel yëpp. waaw waaw ba si directeur si la eh, kii. yow man nga bëgg mayoo ma ko. mais ak yow. Ah, yow moom duma la fàtte. Ah. ku lim juum rek la la la la olof wax. léegi ne ma da nga ris man ji. da nga ris man juus. nan da da nga ris man ji. naka dama ris da nga Rismon Jazz. waaw wax na 12 Rismon Jazz nee ma danga nga Rismon 12 da nga Rismon Jazz da nga Rismon wën. moom yaa tegi natt bi yow. Ah. bii màkk bi yaa ko gagné. bilaay maa la wax loolu. waaye tonton dundal 110 ans ku la nar a yàqal mbéj ko ah. Eh, et toqalal ma tuuti. Eh, eh, waaw ma tuuti. maa leen raw foo koy seetaanee télé bi xew ci jamono TFM toqalal baax toqalal ma fii. loo bëgg rek may naa la ko. ah waaw. jigéen dafa war fiir wala. waaw dafa war fiir. dëgg la. waaw loolu moo am. waat ko. looloo war a am. waaw. kii du ma ko rek. <laughs> maa lay yaa may daaneel. waat ko. parce que yaa may oh. daaneel. yaa xew ci jamono. mais jël yaa def ba ma Émilie Dion. waaw. mais joli Touba <laughs> <laughs> koy nuyu ci Baaba Maal bi. Euh, di nga daanu de baal ki ngay xool. lan la. Eh, looy regarder fan la ñuy feeñ. ah fu ñuy feeñ. xew ci jamono. xanaa TFM. kon fa ngay feeñ. Ah, ci diiseer bi. <laughs> ah yow lii mbaa jàmm la. Potayason. yaa moo gën a buuj. xool xale yëpp ci yow la ñuy roy nag. barke Cheikh Ibra man ci yow lay roy. Serigne Touba yaa ñuy daaneel. Ah. pote li ngay dóor. Ah. fi ngay fële. couleur yi ngay génne. non pote ku newul yow la dafa soxor. mais xoolal affaire bi yow la. yaw la. fi mu ne bidiw bu bees nga may jox nii. gis nga. moom laa may naa ko ki nga xamante ne mooy Baaba Maal ma bàyyi ko mu nuyu ko ko neex ci Baaba Maal bi xale yi dañoo ñàkk ki ñaan macha allah mais même moi aussi j'aimerais beaucoup léegi yow koy nuyu. Euh, dema ma part je micro maa ngi nuyu sama yaay Jatu Gueye di nuyu waa Médina ñun ñëpp ñu ngi ñun ñëpp nous sommes derrière Poté ñu ngi koy jàppale ci liggéeyam bi elle fait du très bon boulot ñu ngi koy encouragé di ko jàppale. waaw léegi nee na un bon boulot nag nag. elle fait très bon boulot ñu ngi koy jàppale ñun ñun ñëpp toute la Médina se mobilise avec Poté nous sommes de tout cœur avec elle. kon man ngeen di voté. yow la ñuy voté yaa jël P. TFM yaa fay xola yaa fa jël P. waaw loolu tax na fi mu nekk nii nee na man. ku mu neexul toppal fële. ku mu neexul Rismon jiisal. ok ciao ciao affaire TFM la. yow rek la. Ah. waaw ba dagate. Ah. tax. yow la dafa soxor. mbaa jàmm la grand dellu si waat sa numéro laa bëgg. jëlal. ñu combine. 77. 695. 17. 11. 18. waaw boo tax koo koy xale bu jigéen bi ris mun jiis neex ci gël tàppe kii moo gën a saf sàpp ci gël tàppe may nañ ko ko <laughs> mbisaan yaa ngi catu rek mais buñ pare <laughs> do yi ma war a tàppee bëri waaw viens viens léegi xale bi may nañ ko Baaba Maal bi kon dañuy jàll ci beneen clip xool keneen kuñ koy may ci seen biir émission Rismon Djizz ba tey di wax sama xarit boobu sëyam tas ci euh, xale bu góor bi di nopp xam nam ci biir koñ bi maa ngi koy ñaan mu dellu si ci biir kër gi ndax moom moo mën a téye xale yi góor mën ta téye xale ba tax ummi ñëwal waay borom ji bi dama génn ma jël yow yaa gaada fi fay liggéeyee ah xam nga yow danga maa neex ndax dégg naa munoo boole doo boolewaate doo ma boole di ma boole bënn ma ko de dama ko taqa rosa rek naa rek maa fi euh, yaa ngi si émission Rismon ji ko nuyu si biir émission bi waaw oh, xanaa nuyu sama mbokk yi nekk Kër Mbaye Fall euh. Euh, sama jarbaar yi fa nekk Grand Yoff nii rek ngeen di def bu timisee tuuti ngeen génn naan nii di yoot ah. <laughs> loolu yaa ko xam ñu ñun xamuñu ko. yaa ko wax de yaa ne raasa. borom kër lañu daan doore rek lañu. ana sa jabar. Euh, mu ngi Fuuta depuis Sinthiou Bawam bi. nuyu ko. waaw maa ngi nuyu Oumou Coulibaly. di nuyu famille Coulibaly yëpp. depuis Sinthiou Bawam bi Fuuta. waaw ok nuyul ma ñëpp dégg ah baal ma dégg nuyul ma ñëpp dégg fii mooy Sothiourys mon ba tax na boutique bi dinaa nuyu ñaari xarit yi ay xarit dëggantaan pour nga pour nga xam ne ay xarit lañ il faut que ñu jàkkaarloo face à face waaye koo ci gis mu dend ak moroomam rek duñ ay xarit xarit dañuy jàkkaarloo ba tax na damay nuyu kii na sant bu baax. ne ko maa la raw. waaw maa la raw. ne ko sa casquette bi dafa rafet. <laughs> sama soko dax. ne ko sa bëñ yi dafa chon. waaw sa bëñ yi ne xool leen am fu la jonge daw na daw na waxoon naa leen waxoon naa leen ko gannaaw jël nga coupe bi soxna si waaw mu nga fa euh, mhm. lu ma la bëggoon a laaj sax waaw euh, ban clip nga bëgg ba pare nonga loobe rek koo ci euh, sama soxna samay xarit ak samay am du jàmm doo ci nuyu bu baax a baax yaa ngi si biir. ndànk nga ko wax kenn déggu la. déggoo yaa ngi si yaa jiitu. oui ah, nee ma pëtaxal naa la ci. yaa ngi si biir biir. yaa ngi waaw ba tax na looloy nongoloo bi may nañ ko suñu tonton bi di ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di ñu seetaan yéen ñu jàmm di ñu ko ñaanal ñu ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla yokk seeni at bàyyi leen ci dëkk bi ba tax bu dëkk bi yëngoo ñoom ñu mën a taxaw kilifa ci dëkk du def lu dul arranger ak defar waaye bu ma la joxee na nga def nga naan ma ni non poto bu ma jël nga toj kër gi Sé que ndongolo bi mi ngi fonctionné tax na dama ciy may ñi nga xam ne ñoo toog ba tax dama koy nuyu yow temps yi ngeen ne na nga def. ci loo ne. ay yàlla bu baax. kan ngay nuyu. waaw fi mu nekk nii ñu ngi si seen bi man publicité wu ma ne damay nuyoo. yaa ngi seetaan émission bi tëdd. waaw te suba rek maa ngi koy seetaan. Ah. waaw émission bi nu mu tudd. Euh, Amina Coté. Amina Coté. waaw Amina Cotelette. côté waaw. tu connais parc Hann. oui je connais le parc d'Anne. le parc d'Anne. le parc d'Anne. Ah. oui. d'accord prends taxi pour parler parc Hann. <laughs> kan ngay may dédicace. cib cib nga may ak kan. Ah, kii nday cib cib ak kan. ak kii maa di cib cib ak kan. ak kucaa cib ah, njaga cib cib ak kan. ah mbisaan cib cib ak loota cib cib ak kan. ah waaw d'accord am